Arena Eptonion Tapisa Kun Senegale asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen ñaanal tamit li nga xam ne ni moom mooy mucc xéewal ak wér-gu-yaram di ñaan yàlla mbas mi fi nekk yàlla na ko fi yàlla jële ni ngeen ko xamee nag alterné bu jot tey nu ngi alterné maanaam lundi 6 septembre deux mille vingt 2021 seen émission bi nga xam ne moom moo di Arena Hebdo ngeen koy am leen di bu ne 20h lay commencé di am ay invité yàlla dogal nag tey moom yàlla daa dogal ñoom ci benn invité bu nga xam ne nii invité de marque la ndax li tax ma wax leen ko moom mooy ah, bu ngeen ko gisee di ngeen xam ne yaakaar naa ci lamb kenn du ko laajte muy Alioune say numéro 2 nekk fan écrit wàllu di doomu Géejawaay bu yàggul mu jóge si combat daan digganteem ak Issa Pouye tey nag ñu dalal ko fas yéene waxtaan ak moom ñuy déggaat tamit combat boo nga xam ne dañ ne taxaw na muy digganteem ak Zoss mais loolu lépp dinañ ci dikk ci ay leeral mais tamit dinañ dikk moom ci carrière ndax yaakaar naa ne ci ko xam ah maanaam macha allah carrière am riche na lool ci làmb xëy na nag làmb dafa am na muy doxee jàppal bàyyi waale ku wane boppam la ci làmb mbër maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw sëñ Babacar maa ngi lay delloo ziar di la bëggee. gannaaw mhm. baatoon jubilaay mi seytaan rajim mhm. dañuy sant yàlla julli si yonent bi rek di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëriñ Babacar Mbacke mu kabbaro borom daaru salaam ak gaawaan mu yàgg fi loolu te wér di ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér di ñaan sëñ Cheikh Jëmm Fall yàlla na ko suñu borom xaare àjjana yi kawee ci barki Seera waaw ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di màggal ñëpp képp koo xam ne yaa ngi safoo Alioune Seye numéro 2 rek maa lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax baax di nuyu kilifa diine yëpp. ma mhm. dëgg di leen jaajëfal. Mhm. di jaal tamit euh, Baye Fall yi waaye njaal mi dama koy teg ci sa loxo ah, Serigne Cheikh jëmb mi fi jóge bari ki démb di ñaan yàlla ah mu taaf ñu si barkeem xaare ko aljana moo xalifa yi nga xam ne jot nañ fi jóge fan yi passé parce que bëri na ay xalifa yu fi jot a jóge waaye ki ci mujj moom mooy Serigne Cheikh jëmb ak bépp doomaaram bu nga xam ne nii bàyyeeku nga fi wuyu sa borom di ñaan yàlla ñu wéri tamit yàlla yëkkati leen defe naa ne Baye Fall yi bu ku wax pa Alioune Seye 2 rek sa xel day dem ci waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall parce que loolu lañ gis nga di ko doxe di ko jëfee voilà ndeysaan Babacar ñu ngi lay ziaraat bu baax wax dëgg yàlla di am naqar bu baax a baax a nag mooy comme ni ma koy wax rek suñu borom moo ko sañ moo ko def mhm. lu jaam lu li jaam di bëgg ak li yàlla dogal moom day utee dëgg la comme lii la nam suñu xam nga si ñun moom dañ koy sante yàlla rek mhm. di ko bokk ak Baye Fall yëpp di ko bokk ak julli yëpp di ko bokk ak murit yëpp mhm. naqar bi mhm. di ko ñaanal suñu borom xaare ko àjjana yi kawe ci barke Seydina Mohamed akasa barke maam Cheikh Rafa amin amin barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ibra euh, léegi nag damay ñëw ak yow ci li nga xam ne nii moom moo di ci waxtaan wi fi ñuy njëkkee mooy naa tey ci Arena Hebdo nga wax ñi lay seetaan kan mooy Aline Seye 2 Aline Seye la juddoo fan la yaroo Aline Seye 2 luy métier waaw sëñ Babacar loolu moom yomb na Alioune Seye 2 fi mu juddoo mooy géejawaay laa juddoo fa laa màggee fa laa ci géejawaay géejawaay Gunaas waaw fa laa juddoo fa laa yaree fa màggee fa mhm. xam nga mhm. fa laa defee lépp mhm. waaw fa laa jàngee bëre ba tey jii ni ma nekkee ci arène bi quoi waaw yokkal gi waaw fa laa jàngee bëre ba tey jii ni ma duggee ci bi xam nga lépp daal fa la ma fekk lépp géejawaay lépp géejawaay la waaw jot ngaa jàngee école waaw jot naa jàng école. ba ban classe. ba classe su nante yi rek. sem de maanaam sem 2 waaw fi fi ah. góor yëpp bàyyee. <laughs> da ngaa ñëw jàlloo nga bàyyi. <laughs> waaw damaa ñëw jàlloo ma ma bàyyi waaw. macha allah ban école nga doon jàng si géej euh, école 21. école 21 foofu boobu fu mu nekk si Guédiawaye. boo ñëwee non euh, école 21 Pikine la nekk. Pikine mhm, boo ñëwee ba waaw boo ba boo ñëwee ba euh, tëli bu mag. Mhm. nga du prolongé noonu école 6 après école 21. ok macha allah am na solo mu mel ni tamit euh, kon Alioune Seye 2 euh, ci jeunesse sam après école bi dafi lan nga defi waat. waaw li ma def bëri na def naa menuisier. Euh, def naa ban menuisier métallique ah, bois wala menuisier bois. menuisier bois waaw def naa menuisier bois. Mhm. def naa peintre. peintre waaw. def naa xam nga def naa baletterie. mooy ñu doon baletali ñu doon baletali jot nga koo def waaw jot naa ko ñu di la fay par weer ñu fay par weer chaque ah. mois dix mille ak saa weer dix mille waaw chaque mois dix mille ah. waaw mais xam nga rek waa boo nekkee tout le am looy bañ waaw am na si loo xamante ni Mhm. doo seetaan ñu la koy defar mhm. yaay góorgóorlu jéem a ut loo xam mhm. mooy loolu noonu yooyu yëpp jaar nga ci ba mujj teere ji ci làmb ji waaw ak yeneen yeneen yoo xam ne sax waaw mooy loolu <laughs> mais sant yàlla métier yooyu nga jot a def ban nga ci gën a maîtriser waaw menuisier bi laa gën a tey nii mën nga defar même peinture bi tamit naa ko ah yee kon tey man nga defar lal ak armoire waaw mën naa defar lal mën naa defar armoire ok ndax bi may bi may presque bi may bàyyi waaw mooy lool macha allah. Mm, aayoon nga ci dama dem waaw ba dem ba xam ma làmb bi occupé waaw mu wóor na ma ne xam boole liggéey beeg kii bi. Mm-hmm. moo tax ma ma ma ma ma kii ci ci làmb ji. ci làmb waaw te boobu làmb ji yaa ngi doon xalaat ne yaa ngi ci doon gis bu baax a baax sa sa yaa ngi ci doon xalaatoon na ne boobu war na la mën a ba nga bañ ko booleeg leneen. daal waaw waaw ndax dama mooy li may wax rek même bi may bëre mbapat boobu fekk na ma gëm sama bopp bu yàgg. Mm-hmm. xam nga maa ngi bëre mbapat boole koog liggéey bi xam nga en même temps di liggéey di di di boole koog mbapat bi. Mhm. même bi may bëri arène sax maa ko booleeg liggéey bi ci presque samay cinq combats ma six. Mhm. maa ngi koy booleeg liggéey bi. mais ngay dem nga xam ne yow lii ci li nga jëm nii war nga cee mën a am dara. xam nga looloo taxoon ñu arrêté métier mi. Mhm. nekk ci lamb ji waaw suivre lamb lamb ji la da nga ko doon fay ma ci dugal wax dëgg yàlla mooy ñu dañoo nekk ci gox boo xamante ni goxu làmb la géejawaay muy géejawaay ku xam per Alioune Seye ndem si yàlla sa yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana père Balla yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana suñu grand maam ba mm-hmm. ñu ngi leen di ñaanal suñu borom xaaral leen àjjana yi kawee ci barke Seydina Mohamed foofu moom ku fa dëkk da ngay bëgg làmb far foos mm-hmm. waaw loolu moom moo ma dugal ci làmb en même temps suñu koñ amoon na benn équipe bu ndaw boo xamante ni Baye Góor maa ngi koy ziar au passage moom moo ñu xam moo ñu tette ñu am benn écurie bu ndaw ak Alamda xam nga ak sunu grand yëpp rek ñoom Abou kamaraak ak Mama Saliou xam nga gaa yëpp rek. Mm-hmm. amoon fa benn écurie bu ndaw bu ek bu mbootu Père Balla tëggee. Mm-hmm. ñu dem wàll ji. Mm-hmm. dem seetaani. loolu daal moo ñu affecté xam nga ba ñu bëgg bëri suñu koñ tamit doon am ay mbapat yu mag. lool daal moom moo gën a moo ñu gën a bëgg loo làmb. ok mm. loolu moo dugal si làmb ji. Mm. macha allah loolu moo tax nga dugg ci làmb ji eh, ba làmb ji ci côté mbapat bi foo ci fàttale ko foo xam ne Alioune Seye toj na fa ci ay bëre mbapati koñ yeeg yooyu. non fi ma fàttaliku fu ma toj. biir géejawaay ak foofu li géejawaay. waaw bëri na bëri na hmm. wax dëgg yàlla. Hmm. man moom sama carrière presque yëpp dama ko dama ko mbapat sama benn commune dama may tooñ sax Lamine Biteye maa ngi hmm. lu bëri. ndax boo xoolee sa làmb li ko yéexal yëpp xam nga ci li nga def ci mbapat. li nga def ci mbapat moo bëri am na si ñoo xamante ni boo waxee diw yaak Alioune Seye sax dañuy am xam dañuy am lu ñuy lu ñuy lu ñuy. lu ñuy xalaat lu ñuy xool waaw lu xalaat lu ñuy sóor. bataal mbapat def naa ci leen wax dégg yàlla muy mhm. Pikine mhm. Géejawaay Parcelles mhm. yëmbal xam nga yi def naa ci lu ne daal waaw mbapat bi may gën a bi may gën a kii daal moom bokk na ci mbapat Assane Diouf bi ak mbapat Assane Diouf waaw Assane Diouf waaw daan nga fa naa fa ñëw waaw mooy mooy làmb ji nga xamante ni euh, maag Balla Gaye woon ñoom Tapha Tine nga fa woon ñoom Elton nga fa woon Balla Gaye 2 waaw moom moo ma daan Balla Gaye ma daan Balla mm. boobu yan mbër ñoo fa nekkoon. non mbër yi fa newoon bëri nañ ñoom tiijaan Faye ñoom Elton xam nga ñoom americain mhm. ak euh, ñoom Ibou Fall ñoom Ndoof. Ibou Fall bu rëbës. waaw mhm. ñoom fëgg la. Mhm. champion yoo fa newoon bëri nañ daal. champion yoo fa newoon bëri boo boo limee da ngay juum. da ngay juum waaw. kere yow champion yooyu ñan nga fa daan yoo xam ne tey ñu ngi ci lamb di exister. waaw presque ñi fa newoon ci ponk yëpp maa leen daan daanoon naa fa Xamasiga daan naa fa Elton daan naa fa Ibou Fall daan fa Ndoof. waaw ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp maa leen ba dem final ak Balla dem dem waaw. parce que foofu daan am lamb yu neex. dafa daan neex ma fa daan. Ah. Bathie Seras production mën naa ne mën nga ne sax foofu la juddoo. waaw lamb jooju defe naa ñoom Assane Ndiaye ñoo ko tëgg. waaw ñoom dañu fa daan tëgg production xam nga daa xaw yàgg waaw Assane moom maa ngi koy nuyu au passage. moom wax dëgg yàlla xam nga borom baal maa ngi koy nuyu waaw Assane Ndiaye ndeysaan muy nuyu tamit sa promoteur bi la mujj a tëgg muy sunu papa Gaston Mbengue moo la mujj a tëgg yaakaar naa yaa ak Zos. waaw yaa Safurla. yow ak euh, Isa Pouy. waaw man tamit maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu sama papa Gaston dëgg yàlla. <laughs> mu nekk xam nga père bu baax. Mhm. xam nga bu boo xam ne day suqali la macha allah maa ngi nuyu tamit doomam. Euh, Makan Makan. magan tamit ñu ngi koy nuyu sama sama sama sama ménagère Abdoulahat Abdoulahat dëgg yàlla seetaanuma benn yoon mu ngi may jàppale ci biir ak ci ku baax waaw lépp loo xamante ni làmb mu ngi koy laaj sama diggante ak làmb rek mhm. wax dëgg yàlla xaaruma ci sax moom day jég day jóg doxal loolu doxal la ko ba pare non laat moom lem fatigable laa ko. non macha allah maa nuyu sama soo bëggee dégg daal moom la laat baal mooy làmb jamono ji. laat Ndiaye lu mu laalul baaxul. Ah, saf na ca sàpp de waaw macha allah yàlla na ko yàlla defal cat di ko nuyu bu baax di nuyu ay soxnaam di nuyu waa gërëm parce que di nuyu makan moom nga wax parce que tamit suñu waay la makan mbeng mm-hmm, mm-hmm. maa nuyu bu baax a baax baax di nuyu père parce que lii yëpp boo gisee ñu ko bon mm-hmm. yow roof yàqul roof yàqul jën sax voilà ñun <laughs> lamb rek la ñuy te bu ñu sañoon promoteur bu tëgg jariñu <laughs> te père yaakaar naa comme li nga wax léegi rek mhm. tey ci lamb dafa actuellement li mu mérito man ci sama gis-gisu bopp ci mhm. lamb moo ñu di ko delloo njukkal parce que yaakaar naa ne 92 ba fii ñu koy waxee mhm. Alioune Seye du at yu ndaw wallaay na gën a gudd fan gën a wér di ko teg ci loxo mu joxal ma ko kullu kuy promoteur dëgg la dëgg la allah am na solo léegi waaw bi may dugg ci lutte avec frappe ma xool deux mil defe naa deux mille cinq la de suma juum. deux mille cinq bu bëri avec frappe loolu laa ci laa njëkk bëri. kon mën naa ne yaa ak Balla Gaye a duggandoo. at yéen a bokk at mu ngeen bëree ñoo ñoo bokk. parce que moom deux mille cinq la bëri waaw ñëpp deux mille cinq la. ñëw deux mille six. Ah, euh, bu dëkk mbuur bu dëkk Mbour waaw. ok say combat tey ci arène ñaata combat la. su ma juuma war naa bëri ay presque xool ay dix neuf combat vingt 19 ba 20 combats waaw su defet yi moom jàpp nga ñaata la. defet yi su ma juumul 4 ko 4 defet la ah. kan la daal. Euh, Modou Lo. Mhm. Euh, Saalum Saalum. Mhm. Saa Kajoor. Mhm. ak euh, Boy Bawal. waaw su ma juumul yooyu la de. Moussa waaw ak Moussa Ndoye cinq défaites cinq défaites waaw ok kon euh, Sakho jot ngeen a bëri arène waaw Sakho jot nañu bëri pourtant yéen a bokk boobu géejawaay de waaw ñoo bokk géejawaay mais jamono jooju noonu boo cent pour ñu woon boobu man di bëre seen biir waaw dañ doon bëri seen biir géejawaay dañ doon bëri seen biir euh, mbapat dañ doon xam nga mel ni ku kuy rayante <laughs> waaw ah. wallaahi kon xanaa sa mbapat maag Balla metti woon na de waaw ah, non seen final nag boobu taxu taxu koo demee noonu ndax ñoo bokkoon benn écurie xëy na li ñuy wax ah, rek boobu moom mu ngi farakante écrit waalo non boobu mu ngi ci mu ngi ci école bi ndax école bi école bi écrit waalo bi yëpp ñoo ñoo bokkoon fi ngeen entraîné lépp benn la woon rek Mm-hmm. ndax père Balla bi muy bi muy bi muy bi muy samp école bi mm-hmm. dafa samp école bi pour bu ñu màggee ñëw dugg ci écurie bi ci écurie voilà ñoo doon bokk ndax ponkale dañ doon dem ci ñi di bëre ñii di ñëw di ci ñii di bëre mais seen diggante ak ñi moo nekkoon en jeu quoi comme ay ñoom Sa Sa Kajoor xam nga ay ay ay ay muuma mu Amar Fall muuma waaw ku a bëre ne woon bi ne woon Pikine waaw Mame Balla ñoo ne woon Géejawaay mhm. ak ay ñoom Njaay Malick Njaay Malick xam nga noonu waaw doom papa ay ñoom waaw waaw ay xam nga gaa yi bëri woon nañ daal gars yi bëri woon nañ. kon derby daan na metti. non derby doon metti trop moo boo xoolee ay combat na yi dañ doon bëre géejawaay dañ doon bëri seen biir combat yi metti sax. Mhm. waaw. Mhm. xam nga jamono jooju 100 pour cent yi amul. amul 100 pour cent doon waaw dañ doon bëri suñu. laale rek. waaw li waykat ba ne laale mooy baaxu góor. laale mooy baaxu góor moom. ngeen di laale ba mu saf saf. <laughs> Euh, euh, defet yooyu nga am ban defet moo la ci gën a marqué bu maanaam bu la ci gën a metti. waaw bi ma ci gën a gën a metti moom wax dëgg yàlla sama combat booy bawal moom bokk na ci li ma gën a metti lu tax mu metti la ndax benn su ma bi ma koy bi ma koy jël war ma ko woon jël booy bawal waaw hmm. ñaareel bi maa bëre maa maa xeex maa daanu aluy ah, loolu noo bëree xeex daanu mel ni mu defut dara waaw loolu boo seetaanee làmb ji hmm. xëy na nag victoire moom du tuuti déedéet noo ko ah, amee baax noo koy dafa ko amee baax na ndam mais képp koo xam ne yaay woon ci làmb jooj noonu waaw gis ni làmb ji demee hmm. wax dëgg yàlla da xam ne kii moom xëy na ndamam moo jotoon ci moom rek suñu borom moom lu mu nam ci doomu aadama ala kulli moom it xale bu téeña la bu të waaw non boobu noonu ñeme lool jour hmm. rek mais la nekk yëpp ma maa ko def deful lu la daan daal non deful lu ma daan wax yàlla ah yow loolu nga gis waaw mais loolu moom moo yóbbu ndam la non moo yóbbu ndam la loolu kon <laughs> Sa Cadior tamit mën nga net li seen combat waaw Sa Cadior suñu waaw suñu combat boobu tamit xam nga mu nekkoon dañ doon bëgg a tëgg maa ngi moom mbapat hmm. xam ma mais fu ñu jaar rek affaire yi xaw ma fu muy yàqoo hmm. ndax boobu mu ngi toj géej waaye ndax saa saa ka jox maa ngi koy nuyu au passage wax dëgg yàlla Baye Fall hmm. boobu woon ndaanaan la woon wax dëgg yàlla mënu woon tëdd mbër géej waaye te doo ngi koy nuyu suñu borom defal ko tawfiix ak taysiir may ko wér ci barke Seydina Muhammad dëgg yàlla suñu combat woo noonu dañ ko doon bëgg mbapat même arène sax doon nañ ko bëgg mais affaire dafa tëwoon ndax euh, papa Sakho Dior ak sama benn grand ñoo bokkoon fi ñu doon liggéey fële Dakar. Hmm. Euh, fële fii Baal bool yi nekk. ok Paku euh, Lamb salle salle sal vente salle de ñoo bokkoon foofu noonu. Hmm. mais heure bu ñu waxee kii rek paa bi danaa ko non Alioune Seye du bëre kii ndax nangam nangam yow sama doom nga noonu. Hmm. mais jamono jooju man bëgg naa ko ndax xam naa ne moom champion la te man champion la léegi xam nga par la suite ñuy bañ ñuy bañ ba ci yàgg après ñoom ñu nangu. yàlla dogal ñu bëre. ñu mu mu daan la ci nu mu la daane ci bëree. waaw ci bëri la ma daane waaw comme moom yàlla dogal na moom dafa am relance. waaw dañoo dóorante ma daw jàpp tànk bi. Mhm. mu comme moom suut relance mu lonk ma. Mhm. penk ma. Oh. penk ma waaw penk la la def. waaw ah, maa penk waaw. daa a bëri parce que keroog. non sama saa kajo dama duur tànk ba tax ba doon takk saa kajo moom mën a bëri moom foo ko natt weesoon na ko. wax mhm. dëgg yàlla li naan wax sa baax waaye du wàññi sa mbaax dara. loolu moom yàlla defal na ko. xëy na nag jaax moom day bëgg mais yàlla moom mooy dogal. tey boo gisee talent bu mel ni saa Kajoor comme ni nga ko waxee. ak fi mu tolloon ñëpp xalaatoon fi tey ñoom Balla Gaye toog ñoom Modou Lo ñoom Gris Bordeaux ñoom Eumeu Sène toog fa. ba ci yéen ñi sax far yàlla indi ci moom ndogal bii looy loolu moom du jaam moom day sant yàlla lu ko sunu borom teg. Mhm. da koy santee sunu borom ndax nit mayul boppam. déedéet soo doon may sa bopp kenn du la kenn du la ëppale dara te doo ñàkk dara wala. gannaaw ngay sabablu nag di ñaan moom. Mhm. te xamoo fañ lay ñaan ak fañ lay maye. da ngay taaxirule ba yàlla may la mhm. xëy na loolu la yàlla nam ci ci xam ci jëmmam ji mhm. ñu koy sante yàlla bu baax ndax moom am na ñoo xam ne ñoo ngi nekkandoo woon ci làmb ji mhm. ñii kenn waxatu leen waaw ñii yàlla def nañu xam ñu xam ñu génn làmb ji nekkatuñ ci làmb ñii yàlla jël na seen bakkan te ba tey moom mi ngi am yaakaar nekk di dund di xam nga di nekk ci ay ay yëfu boppam loolu rek doy na sant yàlla xëy na ay loolu ay détails yu ndaw la rek yoo xam ne mënul ñàkk ci dund doomu aadama mais nag na toogaat santaat bu baax a baax a baax te xam am na si ñoo xam ne bu ñu amoon lii mu am nii dañuy sant yàlla baax a baax a baax. Mhm. waaw tey ngeen daan bëri seen biir dem ba biir géej def nekk 100 pour cent 100 pour cent bi est ce que am na njëriñ. waaw 100 pour bi am na njëriñ ndax wax dëgg yàlla ñun ñoo bokk benn couleur bi ñuy défendre war a bokk ndey war a bokk baay xëy na loolu dëgg la am na benn côté bu mu sooxee làmb mais am na benn côté boo xam ne tamit. day defar làmb 100 ah, pour cent bi jàpp nga ne day sooxeel yow jàpp nga ne day sooxeel làmb. waaw day sooxeel làmb benn côté ndax ni ñu bëri suñu biir noonu dafa neexoon day nekk ay xam nga benn genre kii wala ah, ay derby xam nga mu nekk waa gox bële waa gox bi mais tamit boo gisee benn côté xam nga da doon indi ay noonoo waaw dina indi ay noonoo te te wax dëgg yàlla benn benn benn benn gox boo xam ne dañoo war a nekk xama mhm. dañoo a nekk ay war a a séq jàmm mhm. looloo loolu moo njëriñu cent pour cent bi mhm. ba tax na suy suy guy gi di bëree supporter Alioune Seye 2 yi dañ koy yéene ndam ndam bu Balla Gaye di bëree supporter Alioune Seye 2 dañ koy yéene ndam xam nga keneen a keneen ak keneen mais bi loolu amul woon ku nekk yow sa fi nga fi nga jàpp fa ngay jàpp bëgg moo loolu avancé te boobaa loolu mën na indi ay ay kii yoo xamante ni mooy loolu noonu. macha allah loolu am na solo mu mel ni ren tamit géej boo xoolee doxle na. ci côté lamb macha allah. laay wax tous ah, tous di bois odu <laughs> buy gi. ak ah, ver kay kon ma ak ver tous di bois ak ver laa li <laughs> say de wax parce que boo déggee ma wax loolu Lac de Guiers 2 ak lu mën a xew am na tam ci ma seen. macha allah dégg xale yi gis nañ ci xale yu mel ni ñoom ma Mandiaye yaa ngi dégg boo yooyu yëpp def nañ ay sortie mm-hmm. am ci ndam doon papa bu dina daan ñaa bu ndaw tamit di xale bu am avenir mm-hmm. macha allah yow itam daan nga Issa Macca Perera Macca mm-hmm. ah, ñooñu ñëpp génn nañu ak Safara Mbay Diop waaw Mbay Diop waaw ñëpp génn Mbay Tine ah Mbay Tine waaw waaw Mbay Tine bi sa dafa beneen Mbay Tine moom dafa daanu waaw beneen Mbay Tine mu ndaw bi dafa ah, daanu mais Mbay Tine bu mag bi moom moom moo daan yaa ngi dégg ñoo ñëpp am nañu ay ndam yi ci des mooy yow nga waroon sa retour waroon nga waroon dikkaat yàlla dogal corona bi ñëw Balla Gaye de waroon bëre. Hmm. guy gi waroon bëre corona bi ñoom ñu jàppaat dat yi ma laaj la ci diggante Balla Gaye de ak Bombardier. combat waaw loolu comme li nga ñëw li nga wax waaw comme li nga wax léegi rek dañ ciy sant yàlla géejuwaay moom. wax dëgg yàlla ci xam nga ci ñaari at yi nii moom sant yàlla ndax gars yi ñi ngi am komba hmm. ñu si ëpp di daan. donte daanu mënta ñàkk ah, mënta ñàkk ci la bokk ci la bokk ci làmb la bokk mhm. ñu si sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan képp koo xamante ni am nga ci combat mhm. suñu borom defal la ndam lu sedd guy ci barke Seydina Mohamed ñi nga xamante ni amuñu combat tamit mhm. suñu borom may leen komba ñu bëre daan ñi ci jot a daanu nag ñu ngi leen di encouragé di leen ñaanal yoon combat ñu bëre daan làmb ji Bombardier ak Balla nag mooy li may wax rek ñun gën a jege gën a yey Balla ay frère lañ ay mbokk lañ ay xarit lañ dëgg yàlla combat ma Bombardier dañ koy ñaanal suñu borom defal ko ndam lu seddu guy ci barke Seydina Mohamed mhm. waaw loolu daal lañ koy ñaanal di nuyu Bombardier au passage moom suñu jantal grand la suñu xarit la suñu lépp la wax dëgg yàlla mhm. mais ragal fii daal day xañ a wërsëg Balla yàlla na ko yàlla may ndam lu seddu guy ci barke Seydina Mohamed am na solo mais techniquement gis nga ne ñoom ñaar ak ci côté doole ak xeex nii bu ñoom ñaar bu ñu dóorantee non làmb moom wax dëgg yàlla parce que bëri woon nañ daal non bëri woon nañ <laughs> yàlla dogal Bombardier daan ko loolu la yàlla nam ci diggante boobu noonu mais daal ñu ngi ñaan yàlla mu nekk un un hmm. ñu ngi ñaan yàlla daal mu nekk moo xam ci bëre dóor ñu dóorante ndax bëre dóor la rek. waaw niñ naan série pénal mën ngaa dóor mu dugg waaye tamit mun ngaa dóor mu rate. mu waaw on sait jamais. Hmm. boo mujjee mën naa ñëw samp xeex bi ñu dóorante ak Balla Gaye yàlla xam na ne Balla Gaye dóor ko mu wàcc. Hmm. loolu làmb la quoi. ah kon xalaat nga ne Balla mën na dóor Bombardier mu wàcc bu baax bu baax. ndax boo xoolee Balla Gaye ni muy préparé combat bi nga xam ne Balla Gaye préparé na lépp bi mu nekkee INSEP ci gis nga ko métatu liggéey bi mu doon liggéey nga xam ne préparé na bëre préparé na xeex boo xoolee boobu est-ce que neex neex naa door mu daanu non Bomba Dieye neexul dóor mu daanu ndax moom niñ naan gaynde ku déggul jat la ah, te lu ko bit fitam may rek mën na koo jëlee ah, lu ko bët bi may daal fit du ko ko xañ lu ko bët bi may fitam du ko xañ wax dëgg yàlla boo xoolee sax am na ñoo xam ne naan Bomba Dieye moom dama xamul moom nu mu demee moom Bomba Dieye moom mu attaque rek moom mosoo gis ma arrière. waaw man day loolu nag moom fit moo koy fit moo fit moo koy. a arrière. am avertissement ci da nga arrière. moo tax làmb ji mës am avertissement ci da nga moo tax a neex. ma xam ne dañuy daje. Balla Gaye léewtoo bu léewtoo bu yàgg sax da koy sonal. waaw moom kay Bombardier tamit léewtoo bu yàgg da koy sonal. moom boo wane koo xaas mu ñëw Balla Gaye moom balaa nga naan xaas mu ne la xaas yegsi yegsi kon lamb dina ra neex mooy lu doy ah. guy gi tamit ak rëg-rëg combat bu doy waar am ñu bëri ñoo xam ne wala ñu ëpp tamit parce que dañ koy wax nit ñaa koy faral di wax parce que dañ koy jële ci nit ñi mhm. que ni bomb guy gi eh, ak rëg-rëg guy gi amu fa sens nangam sangam am na ñuy wax loolu am na ñuy wax ne tamit loolu d'accorduñ ci guy gi mën na daan rek yow làmb bu taxawee moom ah hmm. ku nekk ak gis-gis te loolu moom ku ne libre nga ci xalaatee nu la saf ñi faral guy gi am nañ droit ne guy gi moom mën moo ëpp doole mooy daan ñi faral rëg Reug tamit am nañ droit wax lu leen saf mais daal man am naa droit di ñaan xam nga guy gi yàlla defal ko ndam. Hmm. daal loolu la ñuy ñaan. làmb ji nag ñëwagul li naan li naan du ñëwagu soo moom xamoo loo loo ci wax rek ci wax lu kii rek ñun daal ñu ngi ñaanal guy gi suñu borom defal ko ndam lu sedd guy ci barke Seydina Mohamed. Hmm. làmb ju nar neex la rëg Reug champion dañ ko koy nangul. bu dëgg yàlla da koo xeex xeeb. loolu la ma wax waaw si gis-gisam la ndax xam nga comme rëg-rëg ni muy waxee su ma ko jàppee nii su ma ko jàppee naa xam mën na jàpp na ko xeeb mais guy gi moom ku ko mës a xeeb rek daan na la. guy ku ko mës a xeeb daan na mës a xeeb rek daan na la. waaw. parce que moom guy gi moom mu ne na moom dafa mën a bëre. nee na jot na dem équipe nationale. guy gi nee na am nay seede nee na def mu fa def ci mbapat. nga fa tegee guy gi sampion la tey tey fi mu nekk nii bu newul woon champion du fi yegg si. kon dañ koy nangul champion bu baax a baax a baax di ko ñaanal suñu borom daal defal ko ndam li seddu guy naanaanam moom kenn naataale woo ko ndax fi mu yegg si nii cuune du fi yegg si te ay champion yoo xamante ne ñu ngi upp làmb ji ñoom la ñoom ñoom la daan kon mën nañ koo nangul naanaanam mën ko mën nañ ko koo nangul waaw mën nañ ko koo nangul ana liiru liiru sama mag maa monument waaye sama xarit sa doomu ndey Babacar. waaw xam nga maanaam léegi da ngaa gëj a jël liiru. non sama waay la. waaw borom borom kuu yi. <laughs> kat man anniversaire bi laa ko mujj jël te kër gi sa kanam dóor ma dóor yaa ngi teew. waaye nag su ma xarit la nag. non sa doomu ndey la yaa ak Lamine. waaw dëgg yàlla sama jantal grand la noo problème man tamit mm. maa ngi koy ziar bu baax a baax. borom xol bu nice di ko nuyu di ko ñaanal suñu borom defal ko tawféex. Mm. bu rafet la wax dëgg yàlla. loolu am na moom waaw géej waaye moom da cee taxaw taxaw boo xamante ni wax dëgg yàlla bu ñëpp meloon ni moom Mm-hmm. affaire dina gën a avancé. Mm-hmm. ndax foo gis day kafre ah, ambiance gisee lu nar a yàqu mu defar ko. amul xaj seen ak ah, benn benn mbër géej waaye. liiru amul sans frontière la. waaw ah, kon liiru yow est-ce mën ngaa mer sax yow. ah waaw mu ngi noonu liiru foo gis day bëgg rek. piki rek waaw xëy na nag nit moom mënta ñàkk di xam yenn saa yi nga am ay mu tàgg waaye des nag mu safu mais li muy bég nag moom moo ëpp fuuf waaw non moom kay mbégtee ma koy remercier parce que ah. keroog sama anniversaire le premier bi wax dëgg yàlla vidéo bi ma defal àddina bi yëpp ko reprendre gars yëpp ko reprendre moom noonu la mel moom waaw muus buy muus buy anniversaire boo ne ko muus day anniversaire sax mu defal vidéo non moom kay macha allah la te nit ku dëgg yàlla yàlla ah. ak lu mu ah, naa jafe-jafelu liiru tey liiru yëgul sax li mu doon wax bër dina fayee ko ay millions gën la liiru gën la nekk esta voilà mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu tamit loolu waaye mën a wax tey am na cër taxut mu aj boppam toujours mu ngi ànd ak humilité mhm. di kaf di fo di ree te loolu tam dañ koy soxla ci nit ñu koy nuyu di ko ziar non borom baax la li ana moom da doon dégg naa fa da doon tudd samedi bële paas waaw waaw waaw waxu sama doomu ndey sama xarit maa ngi koy ziar na ko yàlla defal jàmm liir bi yàlla defal ko amin amin amin amin amin koy ñaanal moom tamit balaa yàgg suñu borom may ko combat mhm. wax dëgg yàlla ci làmb la bokk kenn mënu wax a wax a wax a wax a wax a wax ba génne ko ci làmb mhm. ndax daan na fi ay ndaanaan mhm. def na fi preuve am mhm. dëgg yàlla ñu ngi koy ñaan suñu borom defal ko tawfiix ak taysir bébé bi nga xam ne moo gane bu yàggul suñu borom defal ko jàmm def ko mag mu am diine am lislaam te mën a tekki jëriñ ay waajuram man daal maa ngi koy ñaanal la dëggeer deux suñu borom defal ko tawfiix non suma xarit la sama cheikh la dëgg yàlla suma xarit la suma cheikh la sama doom day la lépp loo xam ne da ciy dugg moom du njumbal la dara. Mhm. man it noonu. kon maa ngi koy ñaanal baax a baax a baax. sa waay la loolu loolu loolu am na vraiment koy nuyu di ko ziar ah, di nuyu Mathia. Mhm, waaw Mathia maa ngi koy nuyu. di nuyu tamit ku mel ni Dieye Sène. waaw Dieye Sène waaw bokk la moom sa moom moom Dieye Dieye Dieye Dieye waaw waaye. waaw bëggul kenn koo xamante ni nekk nga écurie Waalo rek di am ay kërëb kërëb. rawatina Géejawaay gi yëpp la taxawu jàppale leen. dëgg la waaw Dieye moom tamit ñu ngi koy ñaanal baax a a baax. Mhm. waaw am na solo kon nuyu naa waa Géejawaay yëpp rawatina Abdou Aziz Ndiaye Uh-huh. borom diw gi maa ngi koy bëggee moom tamit borom Zador. waaw borom Zador waaw ñu ngi <laughs> comme ñuy waaj màggal gi. dina baax ci màggal gi. Mm. mais léegi damay ñëw léegi ali carrière Alioune Seye 2 daa mel ni dafa dem defe naa su ma jiwoon bi nga bëri ak Moussa Ndoye ba ñàkk. Mm. est-ce que bëriwaat nga ci diggante bi wala ñàkk jariñ nga waroon bëree laat. non bi ma bë bi ma bëree bi ah. naa ci diggante bi. kan bëri naa fekk. normalement bëri Moussa Ndoye toogaat deux années balance. waaw ñu def ñaari année balance. waaw waaw bëree ak Yanda defe naa. waaw ma bëree ak Yanda. Mhm. après ma bëree ak euh, kii. Mhm. ma ma ak euh, ma bëree ak Boy mu daan ma waaw mu daan ma ma toogaat deux années balance. bëri na wala man loolu moom moo gën moo freiné sa carrière loolu moom moo gën xam ma. te génération ñoom Modou Lo nga pour nit ñi xam ko. voilà ñoom Balla Gaye yéen bokk génération. voilà ndax ba ci ñoom Tapha Tine. mais benn génération ngeen. lañ mais. xam nga rek. waaw nit moom da ngay def li nga war a def rek li si des nga bàyyi ko si loxo yàlla. Mhm. mais man xam naa ne loolu du sama ñàkk ma li may def du sama cuune du sama matadi. Mhm. mais boo boo boo boo amee yéene di mhm. bëgg lu si suñu borom moom mooy mooy mooy. moo yor dogali daal moo yor la namm si ñun ndax mooy comme li ma koy waxee am na si ñoo xam ne ñoo sant yàlla nii ma nii ma nekkee. nii waaw maa ngi sant yàlla baax ndax làmb ku ci tudd di nga ci boole Alioune Seye numéro 2 maa ngi am sant yàlla lu ma bëgg a maa ngi koy lijjanti mhm. di am jàmm ak loolu sant yàlla maa ngi ci sant yàlla baax a baax a baax te loolu amul prix léegi damay ñëw ci combat boo xam ne avant ngay bëree Moussa Pouye bëri nga ko sa digganteeg ñàkk jariñ combat bu doyoon waaraan combat bu bëri woon enjeu waaw combat bu neexoon lool <laughs> ñëpp di leen xaar macha allah ba léegi national fest lool muy nuyu <laughs> suñu papa Khadim Sam moom mi tëggoon bés boobu waaw waaw nga waaw ba ngeen dongale yéen ñaar nit ñi bëri rek la ñu waaw waaw baaw far lamb ja jaare fa <laughs> mooy lépp doxe tàbbi géej suma papa xaarim sàmm ñu ngi koy jaar moom tamit di ko bégge bu baax a baax a baax mhm. di ko ñaanal journée mi mu jëm mhm. suñu borom defa ko ci lu kaw yu njottam moom lamb jooju neexoon na wax dëgg yàlla mhm. mais nag aventure lu ñu amul leen naqari rek mbëri ñoo leen gën a am lu leen naqari hmm. wax dëgg yàlla yéen ñi waroon a bëri te bëriwu ngeen ndax ñi nga xamante ni jël nañ combat presque quatre mois xooma hmm. préparé ko ci anam bu mucc ayib hmm. jël suñu xaalis yëpp def ko ci ak suñu coono ñàkk nelaw xam nga doo mën a lekk bu baax xam na jël sa coono yëpp def ko ci mu ñëw mu demee noonu wax dëgg yàlla amateur yi am nañu leen naqari waaye ñun tamit am nañ lañu naqari mais loolu la yàlla nam loolu la yàlla bëgg dañ ciy sant yàlla te xam ne noonu la ko bëggee woon noonu la la vie continue quoi waaw la vie continue ah. nga jógewaat fa ñuy wax sa combat ba ñu xëyee xëy ñu sa combat ak Issa Pouye taxaw na. waaw ñu koy sante yàlla rek mooy li may wax rek comme ñun moom dañ doon toog ay année balance yoo xamante ni boo xoolee sama carrière li ma ci année balance mat na ay 7 ans wala ay 6 ans. Hmm. wax dëgg yàlla da ngay bëre am ay combat 8 mois bëre benn at. toogaat waaw wala nga toog benn at doo bëre. bëree toogaat ñaari at xam nga loolu tamit day metti mhm. mais loolu sant yàlla rek ba ma jógee ci ñàkk jariñu mhm. ñu jox ma Issa Pouye bu làmb la comme làmb yeneen yi rek mhm. ma waajal ko comme ni ñu doon waajalee yeneen combat wala bu ko raw sax yàlla defal ma ci ndam ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax Issa bi nga ko jëlee euh, am na ñu wax ne maanaam Alioune Seye 2 mi est-ce que bëggul lu yomb ñeneen ne déet bëggul lu yomb ndax Issa Pouye retouram du neex ndax Issa ku n xam ne ne la non du question bëgg lu yomb. dafa am ñu wax loolu. waa non mooy li ma la rek xam wax naa ko tout à l'heure ma ne leen làmb bu taxawee ku nekk sa gis-gis ndax làmb jooju noonu li tax nekkul lu bëgg lu yomb nag c'est pas la première fois nit bëri bëri ku ko ku ko raw ci làmb ndax boo xoolee ñi fi ñi fi lukkeeku yëpp jaar nañ bëri koo xamante ni. combat bi mu taxawee dañ ne kii waru woon a bëre a bëre kii kon loolu ci làmb lañ ko fekk ci lañ koy bàyyi mhm. ba pare su ma ko jëlee war naa ko jël ndax moom def na fi ay preuve am champion la kenn ah, mënu tudd champion yi mhm. ba pare mu bëree bëri ñii mu daan leen ñu daan ko mhm. kon su ma ko jëlee war naa ko jël dëgg la tardement bi mu toog bëriwul ah, mooy li may wax rek yenn saa gars yi dañuy bëgg lu yomb ba suul ndaanaan ndax dañ naan jëlal Babacar jëlal Babacar nga naan non Babacar c'est-à-dire nga benn nga naan c'est-à-dire Babacar ba deux années balance te fur ngay toog doo bëri rek gars yi dañuy bëri di la romb bien sûr xam nga loolu moom moo gën a soxal carrière am mhm. maa ngi koy ñaanal moom tamit suñu borom defal ko jàmm mhm. mais combat boobu daal boo bëggee dégg-dëgg mhm. jëloon nañ ko te li taxoon ñu jël ko moom mooy bëri daan te yàlla defal nañu ci ndam ñu koy sant yàlla baax a baax a baax dóor mu daanu ba xalaatoon nga ko ci combat ba waaw xalaatu koon ngeen ngeen bëri parce que Issa mbapatkat la te yow da mën a bëri non waaw mooy li may wax rek xam nga gars yi bi ñu naan Issa Issa bërikat la kat la ma ne ko boo bëggee sax ñu baña kii ñu ñu ne su ma bañul woon suma supporter crise hmm. dañuy ñëw rek ñu jàppante ñu bëri ba xam kenn bañ a dóor kenn bañ a ñu jàppante mais comme làmb la ñuy waajal moom hmm. da ngay waajal côté yëpp ci xeex beeg ci dóor bi hmm. yàlla dogal ma dóor ko mu daan lool la loolu la yàlla nam ok macha allah bi nga ca jógee dégg nga ñu naan Issa yi daa war a bàyyi làmb ak nangam sàngam moom mu génne du bàyyi làmb day defaru jiwaat loo koy loo koy dolli loo koy wax ci wax. waaw li ma koy conseillé moom c'est pas la première fois ñu dóor fi nit mu daanu c'est pas la première fois la mbër di daanu. moo hmm. koy wax rek mu gëm yàlla te xam ne ay tàkkusaan yu mag amoon na ko fi. daan ay mbër yu mag. ñoo ñu mer. Mm-hmm. ñibbi ànd ak seen naqar te mm-hmm. ñu bu tey am na si ñoo xamante ni ñu ngi nekk ay mm-hmm. champion waaw tey bu fekkoon bu ñu leen daanee ñu ne bàyyi nañ kon ñoom bu ñu am lii ñu am ndax daan na Balla moom ci loolu la war a xool rek référé wu ci war a mën a ñëwaat nit moom da ngay gëm sa boppam rek ba keroog yàlla def li gën ci daan na tafaatin tamit waaw ñu ngi noonu te ñooñu tey ñu ngi ci làmb ji di exister waaw kon ah. moom na xool lool rek gën a jaajuwaat nit moom lu ñu la xam-xam yaa gën a xam sa bopp yaa gën a xam sa bopp li li tax fi nga jaaroon ba doon li nga doon waaw da ngay toogaat xam ma xalaataat fi ma jaaroon nangam nangam mhm. même bu fa mënul tegaat sa tànk sax nga jéem fa tegaat sa tànk nga jéem ko waaw nga mu jéem ko waaw waaw loolu daal laa koy conseillé ne ko bu mu découragé am na solo loolu am na solo sa combat ak Zoss taxawaat beneen naat beneen naat Zoss koo xam ne danoon bàyyi na bëri Zoss danoon bàyyi na bëri waaw ku ne woon dana bàyyi na bëri xëy na waaw dafa sentir ne comme moom moo toogoon ba ne bàyyi na sentir ne ñëwaat na loolu moom moom la concerne rek mais moom ñu ngi koy waajal rek comme ni ñu doon waajalee yeneen combat yi xeebuñu ko benn yoon nag wax dëgg yàlla. Hmm. lépp loolu lu ñu doon def ci làmb dinañ def làmbu ji bu ko raw ci kàttanu yàlla. Hmm. waaw lu sax champion la comme li dal Issa yi rek moom laa koy wax champion la daan na fi ku ne. Hmm. waaw kon su ma ko jëlee war naa koo jël. di ci ñaan borom mi nga xam ne moo am ndam te du jeexal yàlla ma ci yàlla defal ndam lu seddu guy ci barke mais loolu du ay risque ci yow waaw risque la du risque am nañu ko jàppee risque de parce que nee nañ boo tey bu la ci maara day taali bu la ci leneen fekkee ah man naa métti ci yow leneen dama ci fekk ci kàttanu yàlla ah incha allah ah, loolu lu tax nga wax loolu non dama dama koo gëm li yàlla dogal moo xaw ma ko ci euh, euh, sos ndaanaan la de déggoo li ma la xanaa li mu nekk ndaanaan moo tax ma nangu koo jël ndax boo xoolee am na fi jeunes yu bëri yoo xam ne duñu doon déclenché moom ah. moo leen freiné. laay lay la kooku man bu dee benn fan sax xam naa ko. retour sos rek. kon aw ma xam ma di benn droit di di ko sume wala man a koy xeeb. Hmm. xeeb ma ko benn yoon dëgg yàlla xam naa ne daanaan la def na ay preuve am ci làmm. Hmm. mais daal li ma koy waxal mooy cin bokkul safin te ci kàttanu yàlla dinañ préparé ci côté yëpp incha allah bëre yàlla defal ñu ndam. Hmm. waaw. xalaat ji daal moom ndam rek laa ci ndam rek laa ciy ñaan moom laa ci sàkk te moom laa gëm tamit. loolu nga waaw. Zoss bu ma leen doon xool ci wàllu bëri yéen ñaar kan moo gën a nekk ndaanaan ci bëri. wallaahi lazim maa ko dàq bëri. parce que sëñ Fall du caméra yi ma tiim. yaa dàq bëri Zoss. nañ mañ nañ yàlla may talak fekkee ba jour ba incha allah. Hmm. yàlla may ko wér moom. dara bañ koo wokk yàlla may ma wér ba daña bañ maa wokk ñu ñëw bari ci kàttanu yàlla ma daan ko. Hmm. incha allah combat bi am na dat. non combat bi amagul dat nag. mais xam naa balaa yàgg incha allah dinañu jàppal dara comme affaire yi ibbi affaire tëjoon nañ ko ibbi nañu mhm. yaakaar naa ne balaa yàgg ñu jox dara mhm. incha allah Alioune Seye ñàkku na ci bi non ñàkkooguma nag lu tax waaw dinaa ñàkku mais xam naa waaw sa waaw ja na de mais xam na rek waaw mooy loolu ah, yàgg di dinaa ñàkku ja <laughs> waaw damaa ragal pikiir nag looloo tax nag waaw mais dinaa ñàkku <laughs> ah gars yi nañ làmb ji ñàkku bi ci la bokk ren de ah force mu am daa mel ni de non force boobu nag moo dul yoon luy yoon ko dañoo dañoo nekk ci réew moo xamante ni mhm. wax dëgg yàlla ku nekk libre nga def la la sentir la nga bëgg a def la nga bëgg a def nga def ko mais dañoo weesu jamono jooju nga xamante ni mhm. dañuy ñaan sa loxo ne la ngay def ci far force loolu moom bu ñu ko defee mhm. waaw def dañoo def lu leen neex rek mais loolu ko ci dëgg ko ci yoon ku deful lii def lii moom jamono jooju dañu koy weesu nañ bàyyi ñi nga xamante ni ñoo sentir pikiru hmm. ñu pikiru hmm. te pourtant am na si ñoo xam ne pikiru nañ te CNG waxu leen pikiru leen kenn waxu leen piqûre leen ñoom ñoo jël seen seen volonté wu bopp dem piqûre sant na ñoom dañoo war a piqûre ñu dem piqûre kon noonu la ñu war a bàyyi ñëpp mhm. dem piqûre ku bëggul piqûre dem toog toog sa jàmm daal ndax bi xëy na xëy na pour aar nit ñi la rek laa na ñu ngi koy kii waaw pour aar xalaatu ma ne sax xanaa force la war a doon force bi kay laay bañ rek force nañu wax ne ku sentir piqûre na dem piqûre ku sentir piqûre mu bañ piqûre mhm. bu ko defee ñëpp am jàmm quoi buuxante bañ a am yaa waxoon li yaa defoon li bañ am ndax ñun ñoo bokk loo xam ne mënuñu ko séddoo kon saa su ne dañu war a xool li gën a rafet rek ñu teg ko waaw ndax loolu moom suñ ko defee moom day day xaw a metti daal day metti daal ci ñaari point laay tëje ak yow bi ci njëkk euh, bi may njëkk bi may njëkkee mooy euh, Siteu yéen a bokk làmb ji ngeen gis yaakaar naa seetaan nga ko hmm. fan yi bi mbënd mi taw bi bëri bi nga xam ne dakaar bu tawee rawatina banlieue bi hmm. ndox mi daf leen di sonal lool mu jël ay moyem ak moyens nit yi koy jàppale ut ay li nga xam ne moom la ñuy tudde ay machines yi nga xam ne mooy manque ndox meeg yu mel ni ki noonu mm. ah di ko distribuer di ko séddale nit ñi ci mbër tey mu mel ni loolu geste la boo xam ne tey yow en tant que lutteur noo gisee jëf jooju ak geste boobu waaw Babacar ñun moom xam nga tout d'abord dañuy masaw ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ndox mi sonal na leen ñii ñuy am ci lu ay bagages yu yàqook yooyu noonu ndox mi sonal leen ñii mu génn leen seen kër mm. ñu ngi leen di masaw bu baax a baax a baax a baax baax mm-hmm. li si sa li si ta def nag wax dëgg yàlla képp kuy jullit waxuma a mbër mm. mais képp kuy jullit wala ngay doomu aadama rek mm-hmm. war ngaa rafet rafetlu geste bi mu def te du ci mbënd bi rek la ko njëkkee njëkkee def boo xoolee Siteu ci diggante bi dafa am dafa dafa màggaat Siteu mm. dafa màggaat ci côté yëpp ci communication da ngay da da ngay déglu muy joxe ay message yoo xam ne da lay wóor kii xam xam nga xel mi am na ñu ne ci ginnaawam daal. ñu koy ñaanal suñu borom mi nga xamante ni moo mën a sàmm aar. Mm-hmm. yàlla ko suñu borom sàmm aar ko ndax dëgg yàlla. li muy def nii mënoon na ko def te du ko def. li naan loo def mu rafet soo ko deful woon mu ñaaw mu wax dëgg yàlla def na ko mu rafet trop képp koo xamante ni doomu aadama nga waxuma lay jullit ak làmb de mhm. dépp képp koo xam ne doomu aadama nga rek mhm. rafet nga luy dëgg mhm. yàlla yàq temps jël yëpp te fi mu ko def da ko da ko da ko war a def ndax li mu doon ah. ñoon ñoo ñoon ko def kon daa delloowaat euh, daa delloowaat mbatt ci ndaale rek ñu koy ñaanal suñu borom mi nga xamante moo am tawfiq ak taysir Baye Fall bi ñu ngi lay bëggee di rafetlu geste bi di la li nga xam ne mën nga ko ren bu déwénee nga mën lu ko ëpp. am na solo ndax loolu suñu fierté la suñu waa en tant que mbër. waaw en tant que mbër waa parce que tamit daa mel ni loolu euh, xëy na ci lañ ñuy tuddee ñu ñuy tuddee ay autorité ci lañ ko doon gën a xaar mais bu gisee mbër bu taxaw di jëf-jëf jooju. waaw ah, daa mel ni mbër yi kon ay royukaay la ñuy doon. tout le temps déggoo li ma la wax fii wallaahi lazim mbër yi kenn gënu leen a nekk responsable. ah waaw moo tax bu ñu gis xam nga bu ma gisee ñuy ñuy taxé mbër yenn yenn kii sax man mm-hmm. damay am xol bu naqari. Mhm. ndax mbër mérité wul wallaay la kuy social mbër la mbër la dàq social. Ah, wallaay la zim saa soo xëyee. Mhm. yaa ngi gis koo xam ne da lay diis soxlaam. Mhm. nga mën ko nga ñàkk ko mën di ko kolo kolo ba lijjantil ko xam nga ak ay gestes yoo xamante ni lépp loo xam ne ñu ngi koy def koñ ba mbër bi moo ciy jiitu. balaa loo xam ne maire bee ko war a def sax. mbër bi moo koy moo moo moo koy taxawee. kon mbër war nañ ko joxaat gëddëm joxaat ko àqam bu baax a baax a baax a baax. am na solo dëgg yàlla. macha allah daara yi dafa yokk li ñuy dunde maanaam ceeb diwlin saabu suukar meew waaw metti na trop fu ni nii moom wax dëgg yàlla ku yuuxuwul rek xëy na daa am waa daa am looy bañ rek mais wax dëgg yàlla ku yuuxu tamit war ngaa yuux waaw metti na fa métti yem di ñaanaat ñi nga xam ne ñoo jiite yor affaire boobu na responsabilité boobu noonu nañu xoolaat bu baax a baax a baax te xam ne askan wi sonn nañ mm-hmm. askan wi taay nañ askan wi damm nañ askan wi dee nañ mm-hmm. nañ leen bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax. ndax dund gi moom su seeree rek moom mooy xam nga mooy problème mu ngi am. waaw bu seer de réew waaw mi ngi noonu xëy na da ngay xëy di kolo kolo waaw bi affaire yi wàññee ko sax da ngay gis koo xamante ni day xëy soo bongoon nekk ci bagage yi di kët kët su yokkee mooy kooku gën nga koo sonal kon nañ ñaan yàlla bi nga xamante ni xam nga mm-hmm. moom jeexalul dara mm-hmm. yàlla na affaire yi xam nga wàññeeku mm-hmm. ñëpp delluwaat ci jàmm dund gi wàññeeku ndox mi wàññeeku courant bi wàññeeku te liggéey am ci réew mi waaw liggéey am ci réew mi Sénégal jëm kanam xam nga ku nekk la ngay liggéey itam nga bañ koo xeeb waaw Ah, non doomu aadama moom waru xeeb dara xeeb liggéey waaw li naan weer dërëm moo gën weer zéro waaw waaw nekk ci rek am lu gën ba lu gën waaw am la am lu gën a lu lu lu tane waaw am lu tane waaw am na solo élection maire yi Guédiawaye nga dëkk xëccoo ba daa ni bëri na fa ndax Guédiawaye enjeu électoral da koo am waaw coow la bëri na mais coow mën mais coow mën naa bañ am nag ah xëccoo ba bëri na fa de mën naa bañ a am nag ah, yow foo li tax coow mën a bañ am waaw mooy li may wax rek mooy Guédiawaye ñoom ñëpp képp ku fa jóg géejawaay moo la yitteel kon war lañu war nañ koo xam war nañ koo xëccoo ci ci fi ci fair play uh-huh. ci dal ci jàmm uh-huh. ndax képp koo xam ne def na lu lu safaanoo jàmm ak ak ak ak ak dal rek mooy yaa ngi lal population géejawaay ndax ñu uh-huh. ñëpp di gis koo xamante ni yéen a bokk ndey ak baay kii far fee kii far fii kon tey su amee xëccoo wala rayante rek yaa ngi jaxase ay loo xamante ni mooy loolu noonu mais dama leen di ñaanal ñoom ñëpp képp koo xam ne yaa nga fa nekk di xëccoo nga woote si jàmm yàlla ki mu ko na ma teg ci loxoom mu teg ko ci loxoom ci jàmm ñi nga xamante ni tamit yàlla joxu leen ko. ñu ànd ak kooku liggéey ñu ànd kooku liggéey. wala ñu mm. jéem a seeti leneen rek. ñu seeti leneen te xam ne loolu la yàlla nam. yow ci sa candidat ñoom Gakou ñoom ah, ah, ah, nu mu tudd waaja Sall seen maire non ñoom ay ñëpp Sall ñoom samay frère lañ ñii samay tonton lañ ñii samay grand lañ. mais ay Aïdara moom. Mm. wax dëgg yàlla ma maa ngi ci ginnaawam. Mm. waaw ragal féete day xañ a wërsëg Ahmed Aïdara sama mag la sama xarit la xam lu tax lool woon. Hmm. koo ne xaw ma noonu lay def rek ni mu la def moom moo tax. maanaam koo ne xaw ma noo koy def. ni mu la def a tax ni mu man du ma politicien du ma daw ci ginnaaw kenn. ok mais nit day am noo xam ne dala koy taxaw wala mu jàppee la ko rek. Hmm. dalay maanaam gor su ne gor nga. waaw dalay dalay dalay dalay dalay yeew. Hmm. ci te maa ngi moom séq nañ loolu. boo demee këram amul audience da ngay ñëw dugg donte xam nga affaire yi kiiwagul mhm. mais lu mu am mu néew mu bëri dina ko bokk yow moom dina toog temps en temps mu woo la mhm. heure boo ko woowee mu jël mhm. xam nga loolu yombul daal ma am sama combat mu def déplacement ak ñëw ak fi ma ko soxlaaye dëgg yàlla mu bëri ñoo xamante ni waroon nañu ci mën a jàpp mais xam nga mooy loolu kenn du wax lépp mu ñëw def déplacement ànd délégation mu bëri ñëw jël xaalis bu bëri jël tiset yu bëri jox ma boole kook ay yoo xamante ni man la si waaye ci suuf la nekk. am na solo xam nga loolu nekkul lu ndaw. déedéet tey su ma toogee fii di di di lim laa kon damay nekk naar féex. dëgg la waaw teewul nag. Mhm. ñu nekk ci géejawaak yëpp jàmm laa séq ñoom. Mhm. jàmm laa leen yéene. Mhm. waaw ko ci jël nag. damay xam ne xëy na loolu la waa géejawaay. nam loolu la waa géejawaay nam ci yow. nga jiite géejawaay. teew ñun ñëpp la ñuy ñëw nekkaat ci ginnaaw. dëgg la mais nekkul loo xam dañ ko wax pour. xam nga am benn benn benn lu ñuy écarté wala lu ñuy am par parloo mhm. mais ay dara moom. moom nga féeteel daal waaw moom laa féeteel waaw. loolu leer na nañ macha allah am na solo kooku Aliou Seyde dégg ngeen waxtaan wi am na solo olof na ragal fi day xañu wërsëg. wax na dëgg maanaam tamit bu lenn jógee rawatina lu mel ni ay élection locale parce que élection locale mbiru gox la encore une fois. Mm. ab gox nag buñ ko waxee ma maanaam ka dëkk ca quartier ba. waa quartier ba te amal leen njëriñ. xam ne kii amal na leen njëriñ. <laughs> Mm. bu ASC ba wootee moo ca man bu ay jàng amee lu xew xewu jàmm bu amee xew ba naqar bu amee lépp muy taxaw ba yi koñ bi mu di ca taxaw kooka maanaam bu ñu élection locale kookay taxawee noonu ca goxam ah defe naa ne nag moom la nit gën a soxla kon moom itam defe naa ne loolu moo am na si droit ku ku ne am nga droit choisir kala neex waaye nag li am solo mooy ni mu wax rek ñu def ko ci fair play xam ne ñoom ñëpp population gox bi moo leen intéressé ñu dem ci ay élection ci jàmm mm. ki gagné jiitu gouverner ña nga xam ne ñoom lañ gagné tamit defi mm. leneen wala ku ci mën a ñëw jàppale ka gagné sax ñu jàppale ko Sénégal jëm kanam mais loolu moom loolu moom moo jekk moom moo jaadu voilà waaw liñ naan liñ naan ute bëgg ute bëgg bëgg moo tax marché ku nekk lal lal di jaay loolu dëgg la xëy na xëccoo bi mën na am rek mais lépp intérêt géejawaay la mhm. waaw moo tax nañ ko def ci dal daal ñu def ko ci dal ki war a gañe gañe ki warta gañe xam nga ñëw topp ci ki gañe rek te xam ne dara génnul géejawaay looy tàggatoo waaw li may tàggatoo mooy Babacar di la jaajëfalaat bu baax a baax merci di xam nga mhm. di rafetlu bi mhm. waaw sa plateau bi macha allah waaw kàddu yi yi dina am am solo macha allah lépp da koy dal def ko ci dal def ko ci fair play ngi lay ñaanal suñu borom defal la tawfiix ba nga waa affaire yi gën a saawaan baawaan di nuyu sa caméraman yi wax dëgg mhm. yàlla mhm. liggéey bi rafet na daal merci beaucoup di am contentement bu baax mhm. émission bi nag dama koy may sama benn rakk wax dëgg yàlla sama xarit Abdou saar Abdou Sarr waaw borom unité 4 waaw borom unité 4 unité 4 ak copain yëpp rek képp koo xamante ni yaa ngi dëkk unité maa ngi koy may waa émission bi émission bi waa unité 4 ñoo ko moom. unité 4 ga ca a ca waaw ga ca Parcelles. waaw. ndeysaan ñu ngi leen di ziar bu baax. Mhm. dama koy jël ak nuyo bi teg ko ci loxo ngañ. Mhm. ma déggeen. Mhm. xam nga mu joxal ma ko ñoom. ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ngañ. waaw xam nga ñoom Mama ma Ngacc. ndeysaan xam ma ñoom ñoom Ibu. ndeysaan xam nga ñoom euh, ñoom ay waay sama sama sama rakk ji téer bi. waaw eh, waay xel day. fàttali da ngaa fàttali ko kon ne ah waaw itileer sama sama doy na waar di. waaw moom moom xam nga. Hmm? ak Bamba. waaw waaw Baye bu mag boobu. ñu ngi leen di xam nga ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. am na solo macha allah si limul rek. da nga xam ne waaw. sama kër papa bi nekk foofu noonu tamit maa leen di bëggee bu baax a baax a baax a am na solo macha allah. di jaar baay Góor ba ca Espagne. Cheikh bu waalo France. Mhm, Cheikh bu waalo waaw Alamdaar sama grand frère. Kassi France Ahmed mhm. Sow France. Mhm. xam nga ñoom Jo. ñoom Yaya bu xees. oh ah, kii Moussa Daaf. maa ngi koy jaale yaay mi nga xam ne dafa wàññeeku. ma dëgg yàlla borom fii mi sama rakk sama xarit lépp lu ma nekk soo ba ngoon mu nekk ci mhm. maa ngi koy jaajëfal bu baax di nuyu sama yaay Adja Gaas Adja Gaas waaw sama yaay Adja Gaas ma ca Angleterre Adja borom Angleterre waaw wax dëgg yàlla ki nga xam ne daal lépp loo xam ne nekk nañ ci su booba ngoon moom daal mu ngi mu ngi mu ngi ciy taxaw. di ñu ci jàppale kenn du Adja ñu ngi koy nuyu depuis Angleterre kontaan naa trop wax dëgg yàlla ndax boo limee rek juum. da juum maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. man man maa gën a kontaan ci sa disponibilité tamit ak sa euh, yar parce que loolu tamit dañ koy wax vraiment nit ku joxe cër nga macha allah ñu lay ñaanal jàmm di ko ñaanal képp ku ñuy seetaan di ko ñaanal bépp doomu aadama aussitôt di wax sànq tudd naa ay révélation wala ay xale ci géejawaay fàtte koo xam ne ren mooy meilleur lutteur ci côté jeunes yi wala boog ci espoir yi te di doomu géejawaay di ki nga xam ne moom mooy caatu daaw da nga xale boo xam ne tamit waaw caatu Daouda ah, Fall bare na boppam lool ren macha allah na ko gars yi bàyyi xel te xam ne mu ngi dal mu ngi yoon bu yaru vraiment mu koy ziar moom itam ah, mm-hmm. di ko wax euh, kani rek ah loolu mooy làmb mu mel ni kon làmb ji foo dem rek secteur boo dem ay espoir a nga fa kon loolu la ñuy jeexale waaw Babacar tamit maa ngi maa ngi sant suñu waa écrit bu baax suñu coach su roon eh, waaw écrit waalo waaw écrit waalo suñu mm-hmm. coach su roon suñu mm-hmm. coach Zilba Jules Ba ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax ndax ñu ngi ñuy taxawu te xam nga waaw te yaakaaruñ ci dërëm ndeysaan subaa ngoon guddeeg bëccëg Jules day daw day branle xam nga liggéeyam ñëw jàpp ci bagage yi mhm. ron bu wàccee xam war a dem dallu ji ñëwaat jàpp ci bagage yi mhm. ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm ikirwaa la yëpp ku fi am combat mhm. yàlla na suñu borom may ndam ñi fi amul combat yàlla may leen combat ñu am ndam ci am na solo loolu moo am solo ànd te ma solo laay wax ah tey nag ki ma solal moom doomu ak yaay la waaw parce que nag olof ne na lu gën a jege gën a yey. du ma eh, Baye Góor moo jaar fii de man tamit. ah Baye Góor waaw moo jaar fii. ah lam la solal ci bu la rafet na de moo moo jaar fii. kenn du Baye Góor moo jaar moo jaar fii. ci ci kaw ak ci suuf yëpp daal moo jaar moo jaar. ah Baye Góor Baye Góor Baye Góor macha allah. waaw borom Espagne borom Espagne Babacar dinaa fexe nga waaw nga jokkoo ak ah, Baye Góor. du mën a ñàkk waaw faw mu def dara séri séri Faat ki ne. faw mu solal ma <laughs> euh, kon may wax tamit kon ki ma solal moom Baye Góor a ko solal waaye hmm. man tamit ki ma solal moom mooy Xaadim Tin ñu naan ko Bamba di doomu ak yaay di sama doomu bàjjen nekk fële ca Maris fa la atelier nekk ah ca côté Auchan ba fa lay ñawee numéro téléphone Khadim Tine ku ko soxla da ngay woote ci 77 704 49 39 77 704 39 49 39 loolu mooy numéro Bamba wala boo Khadim waa Maris yëpp nag. baax la boole ak Lamine Biteye nag mu jaar fu fu mel nii tamit. fu mel nii Lamine Biteye Lamine yow de boo ko waxee dama koy gëm ndax bu Baye Fall nga. non loolu kay maa la ko wax Babacar. incha allah ko. Lamine Biteye création nag. Rimka ma ko fàtte ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee ah yàlla na seen jàmm yàgg ak képp ki nga xam ne yaa ngi jàpp ci ñu seetaan di nuyu soppi di ñaanal ñëpp jàmm waaye daal ah Xaadim tin ak yaay couture maris gars yi bàyyi leen ci xel na fa ñëpp dem ñawlu ji lépp lu jigéen di soxla ci yére wala góor am na fa ci technique bi hélas directeur technique maa ngi koy bëgge bu baax a baax di nuyu Balde tamit waaye tamit di nuyu xulle di nuyu groupe Equivox TV yépp di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox dig daje beneen alterné incha allah rabbi ak beneen gan ci ci Arena Hebdo. Arena Hebdo